وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu seetaan ñu ngi leen nuyu di leen ci barab bu tedd bii di jumaay Touba ci bis bu mag bii ñuy dégmal muy bisu fukki fan ak ñett ci waru safar bis bi nga xam ne ci la ñuy sant la Serigne Touba boroomam comme ni mu ko sàkkoo woon ci tukki bu mag bii nga xamante ni moom la def woon euh, ku ne jumaay Touba nag wax màggalu Touba da nga wax mbooloo mu baree bari mu fiy daje moo xam ne ñii dañuy julli si ñii di ziar si euh, ci ci biir jumaa ji ba loolu taxoon na daayira Muxaddamatul Xidma xamoon ko ba ci at yii weesu mu la woon fu mbooloo mu toll nii nga xam ne ay millions yi millions yi nit lañ ñuy daje si jumaay Touba du mën a ñàkk barab boo xamante ni barabu fajukaay lay doon. xëy na mën naa bañ a doon barabu fajukaay bu complet sax waaye boo xam ne yenn euh, li ñuy wax premier soin nga xam ne mënees na ko fee def le temps que ñuy malaat bi ñu koy évacuer feneen ndax loolu mëntoon a ñàkk lu ko jiitu nag amul woon dañ daan am ay ambulance yu fiy gaare wala yu mel ne waaye booba jafe-jafe déplacement day am ci biir màggal gi looloo taxoon daayira Muxaddamatul Xidma euh, xalaatoon ko muy barabu fajukaay boo xam ne nag euh, mën naa ne événement yëpp yamatul sax ci màggal. ci gàmm ci yeneen événement yi am ci jumaa ji yëpp day am solo lool seen taxawaay ñu dénk ko nag ab personnel boo xamante ni ñu ngi ciy taxaw dinañ ci ñëw ci kanam incha allahu taala euh, tey nag ñu am fi gan gu màgg goo xam ne mi ngi nii ci sama ginnaaw ñu koy wax professeur Daouda Ndiaye koo xam ne du yoonam bu njëkk mu ñëw ci jumaay Touba di ànd ak Muxaddamatul Xidma liggéey bi ñëwoon na fi ci jamono bi nga xamante ni mbas mi duggoon na ci réew mi te jumaa ji doon barab buy dalal mbooloo yu bari mu jëloon ay jumtukaay yoo xam ne jumtukaay yu fegu la lu jëm ci wàllu masque wàllu gel ba ci ay sijaada jullikaay lu baree bari léebu baree bari indiwoon ko ci jumaa Tuubaa tey nag mu dellu siwaat nag ci màggal gi ngir am beneen taxawaay boo xam ne war na koo taxaw ci infirmerie bii di barabu fajukaay bi ñu ubbi ci jumaa Tuubaa mooy wax ne nag jumaa Tuubaa moom barab la boo xam ne képp ku sab liggéeyu nanguwut sa sa alal du ci dugg loolu moom mooy mooy mooy li kon mel na ne ab liggéeyam dafa nangu professeur Daouda Ndiaye moomu nag indi bagage yi di jumtukaay yi di jumtukaay fajukaay gis ngeen ko ci image yi nii moo xam ay lal la moo xam ay euh, ay pancart ay chaise climatiseur yoo xam ne day seral ba barab bi frigo boo xamante ni ci la ñuy mën a denc yenn garab yi nga xamante ni dafay ragal tàngoor ay mobilisateur ak yeneen jumtukaay yoo xamante ni ay tensiomètre boo xa euh, appareil yi nga xam ne moom la ñuy nattee jabet yi nga xamante ni moom ku am asthme moom lañ koy kiyal nga xam ne yooyu daal mooy yi nga xamante ni mënta ñàkk ci ci ci ci ak ay médicaments yoo xamante ni ànd naag moom ba ci ay masque di ay loobu bëree bëri boo xam ne buñ ko doon xayma alal ji bëri la. kon nag professeur Daouda moom nga xam ne moo indi jumtukaay yi moom la ñuy jébbal kaddu gi mu mu mu mu jumtukaay yi ak yéen a jim amoon ci indi ko bu ñu noppee ñu doog a ki nga xamante ni moo représenté personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci infirmerie bi ñu doog a jox sëñ Abdou Lahad mi nga xamante ni mooy wax ci turu Muxaddamatul Xidma. Euh, wax ji du yàgg du guddi parce que euh, wax nañ lépp nee na fii ku am may ku yàlla may rek moo ñëw dugal fi alalam mu nangu alalam donc bu ñu yàlla mayee ba ñu dugal fi alal. loolu sant yàlla sant sëñ Tuubaa la ci bisam bi nga xam ne moo ko moomal boppam woote ñu ci jaamu ci yàlla woote ci taalibe yi ñuy taalibe yàlla may ñu def ci lu mel nii muy lu ñu xeeb trop xeeb nañ ko lool parce que infirmier na am wante sëñ Tuubaa moom loo ko defal benn mu fay la fa junni donc bu ñu nekkee taalibe nag ñëwoon fii comme ni mu ko waxee ma ñëw ma dégg ma xool infirmier bi nga xam ne képp ku dugg ci jumaa ji moom mooy bi nekk ci jumaa ji balaa ñoo yóbbu hôpital premiers soins fu mu mën a am loolu ma lañ doon demandé ne donc premiers soins ni ñu ko mën a augmenté rek moo gën ma liggéey ci ak sama kilifa suma xarit suma sëriñ mu Cheikh sëñ Cheikh Mbal Mbal Mbacke euh, bu sëñ Moussa Bachir euh, wax wax dëgg yàlla ak kuréel euh, Fadal Fadal ba xam ne ñëpp xam nañu li mu taxee ci jumaa ji ak ci kër gi moo tax lépp luñ fi indi xeet nañ ko ni mu ko waxee indi nañ fii daal lépp luñ yaakaar ne comme nit ak feebar ñoo ànd nit ak problème ñoo ànd képp ku dugg ci jumaa sëñ Tuubaa bii xam ne dugg fi wërsëg la chance la lu fi mën a it la taxaw te ñu yokk yokk na jumtukaayam parce que lii moom moo ko fi dugal du man lal yi brancard yi chariot yi chaise nébulisateur euh, euh, yi glycomètre tensiomètre de pansement frigo euh, climatiseur Euh, euh, euh, médicament d'urgence extincteur outil de pansement basam jullikaay masque pour taalibe yi gel yi ak li ñu ak leneen ak leneen te comme ni waxa même bisu màggal gi indi nañ fi ay docteur yoo xam ne oxymètre mu ngi may fàttali ci ginnaaw ak lépp luñ ci dugal daal xeeb nañ ko mais wërsëg la mooy liñ def nii te di ñaan Sëñ Tuubaa mu ñaanal ñu boromam lii ñu ko koy defal at mu ne moom bu ñaanee yàlla nangu moo ñu mayoon bi ñu fi ñëwee ñu mu euh, nekk yitte ñu diis ko ko mu yombal ñu euh, di delloo lépp nag mbokku taalibe yi wax ne gisuñu suñu bopp mënuñ cee gis suñu bopp waruñu see it bopp waaye xam nañ ne nag am nañ chance lii du wër la am lii. ñu bëri bëgg nañ ko mënuñu ko def ñu bëri ñu ngi ay millions ay milliards may ñu lañu def ko ku yàlla may ba ñu def loolu ko kooku am nga chance mais nag taalibe sëñ Tuubaa mënut a bañ a ñàkk chance <laughs> loolu mooy différence bi sant nañ ñëpp ñaan mi ñu nekk nii mu jóge fii ci màggal bi jeex Sénégal ba bu màggal bi di commencé ñëw it commencé naa dàggoo bi sëñ bi wootee xasaayite boobu tàngoon na de ñaan googu ak yeneen ñaan a ah, defe naa ne gis nañ ci njëriñ bi de nañ ñaan sëñ bi mu continuer ñaan rek na déwén kurus gi rek bis bi ni tey ak màggalam gii di ñëw mu ne faw jóge ak leneen lu ñu mbas mi mu jóge ba faw yàlla def fi jàmm ak salaam maa ngi leen di gërëm di leen sant di jéggal ci kàddu yu jël ci barabu sëñ Tuubaa bii ba xam ne barabu moo ko moom war ñu fi wax leneen lu sant ko jéggalu naa leen sant naa leen jërëjëf jëfete sëñ Tuba jërëjëf sëñ Tuba jërëjëf sëñ Tuba salaam waaw am na consultation gratuite pour suba ginnaaw suba ba jour màggal gi ñetti fan fii ba la demee ñetti fan yëpp dañuy am consultation fii am na équipe médicale fi nekk mais lépp lu fi dugg rek fi fi la pour moom la jërëjëf. waa kay jërëjëf kon ñoo déggandoo kaddu nga xam ne professeur Daouda Ndiaye yëkkati na ko muy kaddu yu am solo kaddu yu pësteef itam waaye ni mu ko waxee rek noonu la mooy bu ko suñu borom taw feexalee ba mu ñëw dugal addiyaam ci jumaa ji ñëw ñu woon ko infirmerie bi te xam nañ ci li muy yëngatu ci wàllu wér gu yaram la ak yeneen action yi muy def te di ko gis ci réew mi bu baax mu bi ñu ñëwee gis ko mais am naa yéene équipé infirmerie bi wax dëgg yàlla loolu suñu borom tawfeexal na ko ba mu def ko ni mu ko waxee rek loolu la mooy du njàmbaaram waaye tawfeex la sëñ bi moom ku muy liggéeyloo ñu muy liggéeyloo moo leen di tànnal boppam te ni ma ko waxee barab bii moom alal ju fi dugg rek ju sëriñ bi nangu la kon nangu googu nag yàlla na koy def faaw li nga fi def lépp yàlla na ko sëriñ bi nangu te liñ ci yéene ñun ñëpp ñu am ko ci barke Cheikhul Khadim ni ma ko waxee woon nag kon jël kàddu gi jox ko docteur Aly Gaye mi nga xam ne mooy responsable infirmerie bi moom di personnel boo xamante ni ñoom itam mu ne su la nee ñàkk sant gërëm leen ci seen taxawaay ndax bi ñu xalaatee lii rek ñoom dañoo daal di mobiliser wu bàyyi seen yitte yëpp événement bu fi am personnel bi ñëw muy personnel boo xam ne mën naa ne jege nañ lu mat euh, cinquante personnes yoo xamante ni nuit et jour ñu ngi fi bu ñuy sonnee dem dallu ñeneen ñi ñëw noonu lañ koy jàppee ba màggal gi jàll loolu lépp nag day bokk ci liggéeyu Serigne Touba day bokk ci biir cant gi nga xam ne moom la ñuy santale Serigne Touba boromam. kon ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm kon docteur Allé ma jox la kàddu gi rek nga wax ci turu personnel médical bi. jërëjëf. asalaamaaleykum wa ñu ngi ziar uh, mbokku taalibe yëpp ñu ngi ziar mbokku yëpp di jiital ci nuyu bi sunu sëriñ sunu sang sunu xalifa sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te di ñaanal bépp murit ñu màggal si ak jàmm di ziar ak sant sunu MCR docteur Dieng di nuyu docteur Ndeye Maguette di nuyu tamit. bépp personnel médical bu nekk ci Touba ci activité médical bi nga xam ni kenn ku ne xam na ni maanaam diisaay bi jéggi na dayoo waaye ñu ngi koy respecté di ko def ci anam bi bi war di nuyu kilifa yi nga xam ni ñoom lañ fekk ci barab bii muy infirmerie bu grande mosquée bi nga xam ni kenn ku ne xam na ni mënta ñàkk ci soos màggal gi di jaar sëñ Abdoulaat Faye docteur Thioban ñi nga xam ni biñ fi dajee dañ ñoo jël jox ñoo responsabilité wu toutes les activités sanitaires de l'infirmerie kon donc ñu ngi sant ñooñ ñëpp di sant encore une fois aussi c'est-à-dire le professeur Daouda Ndiaye mi nga xam ni li fi indi tey ci loolu matériel ñun ñoo koy témoigner di ko ko seedeel parce que indi na fi lot de matériel boo xam ni lépp lu nécessaire la waaye léppit it lu mu soxla woon la yenn yi dañ ko daan jéggaani yenn yi dañ ko daan abbaani waaye loolu lépp dajale na ci lu bari lu ñu ko ak ñeneen ak ñeneen kon donc dañ koy sant mu monsieur le euh, professeur ci taxawaay bu rafet bi ci matériel bi nga dajale yëpp indi ko xam ni màggal gi jumaa ji la ndax borom jumaa jee demoon kon donc mbir mi fii la nit ñu fi ne nag di rek ay pèlerin première chose yi ñuy soxla waruñu koo jéggaan yi war na am un personnel qualifié prêt boo xam ne day nekk fii def yi ñu war a def yi ci des ñu doog koo mën a yóbbu ci hôpitaux yi pour l'hospitalisation mais aussi pour la prise en charge donc loolu daal mooy li nga xam ne mën nañ koo seddal nit ñi di wax tamit ñun ñi nga xam ni mën nañ ni danoo bokk Muxaddamatul Xidma ndax booba léegi ñu ngi ànd ak ñoom ñu yaatañu ci seen biir ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci seen taxawaay ak xam lépp lu Serigne Touba soxla ci jumaam ji ñu ne ci kon donc loolu dañ leen ci sant bu baax on a reçu un lot important de matériel venant du professeur Daouda Ndiaye qui, malgré qu'il sait qu'il fait partie du sommité de, ce, de l'école de la médecine du Sénégal, malgré ses activités qui sont très serrées, il est en train de poser des actions tout au, dans tout le territoire national du Sénégal. Dans ce point-là, il a été là pour nous donner un lot important de matériel pour les activités sanitaires du Magal. Nous le remercions et nous témoignons sa présence au niveau des activités sanitaires. du grand Magal de Touba et de la grande mosquée de Touba mais aussi de l'infirmerie de Touba merci beaucoup. ok jërëjëf docteur Allé ci kaddu am solo yi nga xam ne yëkkati na ko ci turu personnel médical bi moom mi nga xam ne mooy coordonné euh, infirmerie bi mooy coordonnateur bi mooy coordonné euh, personnel médical bi nga xamante ni ñoo ko ñoo ñoo fi nekk ci turu mboolem ñi mu ko àndal ci ay ay médecin ba ci ay pharmacien euh, di ci jiital médecin chef régional muy docteur Dieng ak docteur Ndeye Maguette mi nga xam ne mooy jiite district sanitaire bi kon dañu jël kàddu gi rek jëbal ko Serigne Abdou Lahad Bousso Mokhtar mi nga xam ne mooy wax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci turu Serigne Afia Bousso muy njiit li ak ci turu mboolem ñi nga xam ne ñooy membre daayira Muxaddamatul Xidma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. professeur ñu ngi lay nuyu bu baax di la nuyu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom mu euh, yokk ak wéram yokk aw fanam mottali ay yéeneem te nu ànd ko ak moom di la nuyu itam ci turu kilifa gi nga xam ne moo nu boole woon ak yow muy Serigne Cheikh euh, Balla Mbacke moom Cheikh Moussa Basir moom it di ko ñaanal li ñuy ñaanal waay juróom boobu di la nuyu itam ci turu kilifa yi nga xam ne ñoo seq daayira Muqaddamatul Xidma tàmbalee ko ci Serigne Afia mi xam ne mooy njiit li ak kilifa yi ñu àndal jataay bii ak yeneen kilifa yi nga xam ne xëy na ñu ngi ci yeneen liggéey ndax jamonoy màggal gi ak xat-xati liggéey bi te liggéey bi yaatu ci loosu Muxaddamatul Xidma di yeesal nag suñu cant bu wax ci yow yeesal laay wax ndax santoon nañ la euh, ndax nëgë daaw ñëw nga fi waaye nag ñëw yi ni daaw ak ñëwinu yi ren xaw naa wute tuuti doonul ne ci bariwaayu euh, andi gi waaye ci li sabab andi gi ci la euh, wutee daaw da nga dafa taseeg jamono joo xam ne jamonoy xat-xat la ci àdduna bépp ni mu ko doonee sax nag ren nga xalaat ni fii kat. jëf ji baax na fi lool nga jëf ko ran nag sëriñ bi ci boppam moo la jox ndigal jaaree ko ci kilifa googu sa googu di sëriñ Cheikh Awa Balla nga indi ko fi tey ndigal nag euh, sart la ci nangu jëf loolu du suñuy wax waxi sëriñ Tuubaa la laa tafaalu shay'an bi ghayri izni fal iznu sartun fi qabuli sha'ni kon jëf ji moom du ju ñuy nattable ndax ndigal la lu bàyyeekoo ci sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Mountakha jaar ci Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Moustapha jëm si ci sëriñ bi nag eh, dafa baaxoo di def eh, li alxuraan dégle wa atul buyuta mina babiha xam na sa diggante ak Serigne Cheikh Awa Balla nañ sa diggante yow mii ak sëriñ bi sëriñ bi mën na laa directement joxal la boppam digal waaye nag sëriñ bi moom moo baaxoo lu ne daf koy jaar ci bunt ba loolu moo tax mu jaaree ci Serigne Cheikh Awa Balla jox la ndigal li waaye yow ndigal loolu bi la ko seex jot le def nga ca la nga war a def lépp fa nga tàmbalee moo njëkk am solo da ngaa yebal sa rak moo ànd ak docteur Penn ñu ñëw ci barab bi fekk nu fi bi nu ñëwee ñu xool lépp loo xam ne barab bi soxla na ko lépp rek moo xam ne lu jëm sax ci jumtukaay yi ñuy faje ba egg sax ci yeneen jumtukaay ñu ñëw gaaral la lépp keroog fi la ñu yendu def ko liggéey bu am solo waaye bi ñu noppee bi ñu ko indilee. mënoon nga seet yenn rek ne yii moo gën a am solo wala yii moo gën a jàmp waaye wala yii moo waaye li ma gis te seetlu ko mooy mboolem luñ bindoon rek fex nga ba am fi te li nga wax léegi nag mooy li ci am yombul woon yombul woon ndax ku ne xam ne ne fa muy jaar ba tax mu mën a sotti doonul rek loo xam ne da ngay jël sa xaalis dem ci bitig ba jënd andi kon def nga ci ay effort yu am solo ngir mën koo am waaye def bi nga ko amee itam andi nga ko ci barab bi nga ko andi professeur nag li ma lay xamal mooy mooy nit kuy baax mbaa muy gore mbaa muy nangoo def yàlla ba si sëñ Tuubaa da nga xam ne sëñ Tuubaa moo la gën a gore moo la gën a lépp wax nañ la léegi ne la barab bii moom du barab boo xam ne ku mu neex nga jëf ci sëñ Tuubaa moo la fii liggéey loolu nga jëf ci am na nag kàddu gu ma waxoon ne woon na ku feeñ da nga feeñ ba faw ku fi ku ci nëbbu kooka dana nëbbu ba faw yow nag bis ni ko tey feeñ nga ci feeñaay boo feeñ goo xam ne ndax lii kat jumtuwaay yii yow yaa fi njëkk indi lu toll nii njëkkoo fi indi jumtukaay yee ndax am fekkoon nga fi ay jumtukaay waaye lu tol nii lu mel nii lu kenn musta laal te mu baree nii yaa ko fi njëkk indi fadlul mutaqaddim kon am nga ko ci loolu kon nag loolu euh, li ñu wax léegi rek sante ko yàlla bu baax te xam ne ndimbalul yàlla la sa Abdul Xaadir Mbàkke daf daan wax ne jàmbaar xamuñu jàmbaar ku ñu dimbal lañ xam kon lii ndimbal la lu bàyyi ko ci yàlla ndimbal loolu nag ni ma waxtaanee ak yow keroog ci bi nga xam ne sa rakk yi ñëw nañ fi di jël si liggéey bi xamee naa ca ne ndimbal loolu luñ la fàggul la mu bàyyi ko ci say wajur ngir ni ñu demee woon ak njabootu Serigne Touba waaye loola it mënoon nañ ko fàgg ba mu egsi yàq waaye nag yaa ngi ba di ko suuxat mu des nag leneen loo xam ne ab dénkaan lay doon mooy tànk yii nga aw bul lu adduna yàgg yàgg yàgg bul ko wàcc mukk inshallah bul ko wàcc mukk yëg naa nag ne adduna bi fu bari soxla nañ la waaye na nga yëg ne fi la ni la adduna bi soxlaa ni la la sëriñ mi soxla te noonu ñeleen la ñeneen soxlaa it comité murid bii nga bokk communauté murid bii nga bokk noonu lañ la soxlaa sëriñ Tuubaa it daf lay liggéeyloo ndax bu la liggéeyloo wutoon du la def loolu yi foo ko mën a defee nag ak foo ko mën a wute fii la gën a sakkane te fii la gën a ñoree te fii la gën a baaxee te bu meññee da nga xam ne fii rek la am solo voilà yoonu sëriñ Tuubaa woo nga am nag na xam na xam sag man te bu xam sa télé na xam sag man te bu xam sa télé soo ko defee rek sa lépp dana baax wallaahi loolu xam nañ ko ci yow kon nag li ñuy naan mooy li sëñ si ñaanoon léegi rek lii moom tegginal suñu diggante ak suñu borom la ñuy def mooy ne yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb sëñ Tuubaa waaye jàpp nañ ne bu ko sëñ Tuubaa nanguwutoon du dugg fii te eh, dafa bari yu ci daje lool xettali doomu aadama rek waaye xettali doomu adama ji nga xam ne ab jullit la waaye xettali li sëñ Tuubaa taalibeem yii la xettali leen ñooñu nag xettali leen fu ne baax na waaye xettali leen ci barabam bii la gënee baax nag am na solo lool waaye fom mu gën rek xam na gën a ko gën kon nag yow li gën nga jël andi ko fi gën kon nag doo ci sa ñaakaar lu may li nga am ca li rek ñu ngi ñaanal loolu nga xam ne moom nga ca war am tamit yàlla nañ ko bokk mboolem ko ko ko bëgg a bokkal te nun ñu bokk te te yàlla na ko yàlla na la jik yàlla na la jik yàlla na jik képp ku ko yéene yàlla na ci yeneen xéewal yu bari topp yoo xamante ni bii da nga yëg ne jëfal nga Sëriñ Tuubaa te Sëriñ Tuubaa kat mag ñu nga fiy dégg ak lu seen itul rëy rëy rëy danaay faral di wax ne xëy muñ xëyaloon Sëñ Tuubaa daje ngërëmam mbaa ngont muñ gontal Sëñ Tuubaa daje ngërëmam ca lañ amee lañ am xëy moomee nag ko xamoon kañ la mbaa ko da nga koy dàkk waaye nag demeewul noonu da ngay dox di dox di dox ba ngay dajeeg moom rek boo dajeeg moom rek sa lépp baax yow nag yàlla nga dajeeg moom ci ngontum tey jii te ñu te te ñun ñëpp ñu bokk ko jëriñoo ci barkeb Sëriñ Tuubaa ñu ngi lay sant nag na nga ni déwén incha allah di ñaan ñu fekkee ko ak jàmm te bu boobaa fekk ñu nekk ci ja ci mbas mi waaye bu boobaa na fekk ne luñ wër gëram waxtu mu nekk dañ koy soxla bu boobaa jàppale na at bu ne moom lii incha allah ñu defee ko noonu rek sëñ Tuubaa ko lii ñun ko sasoo na kàttan gi sax rek ci barke Cheikhul Khadim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu رباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر